بك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعدوب عليهم الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله لقد كان لكم في رسول الله حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو اليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم jërëjëf di Oustaz barakallahu fiik yal na yàlla defal la mbootu alquran e, bi jaay Seydou Diop sallallahu alayhi wa e, kon su ko defee rek e, dañuy jublu ci programme bi mubasharatan aaya bii nga xam ne nag moom la jàng ci suratul ahzab ci aaya moom lañu ñaar fukk ak benn ci lañ jël mawdon bi def ko ci muy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatan hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxiri wa zakara llaha kasiran mu nekk nag aaya boo xam ne nii jamono ji ñu toll nii nag dafa nekk aaya boo xam ne lu war a waxtaane la waaye duñuy def rek duñ def lenn lu dul jublu ci ki nga xam ne mooy suñu sëriñ Seydi wa Mawlaaya Seydi Baye Dramé mu seet nu mu ko doxalee ak rakkam ak tamit sëriñam muy Seydi Aliya Razim kon bismillah Seydi Baye bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak jëmmam di tatagal conférencier bi te mooy sunu sëriñ Seydi Ali Harasimi mu ñëwee fi nag ndigal magam kilifaam Cheikh Abdul Baqi Assane moo ko ebal na ñëw taxawee fii loo xam ne oustaz Aliou Ndaw moo ko waroon a taxawee gannaaw buñ ko ko santee ci ndigal mu nanguloon ñu ko te yaakaar naa ne bu waxtaanee danañ xam ustaas ci waxtaan wi bu fekkee ne ustaas xeeñ la dana am lu ñu ci xeeñ ci moom bu ustaas doon cafka bu waxtaanee danañ am lu ñu saf ci ustaas kon Seydi Ali Harasim daanaka jarut conf eh, jarut présenté ndax li arab yi wax rek nit moom mu ngi ci suufu làmmiñam bu waxee rek ñu xam mooy kan te magam bi ko ebalit xam na ne mérito na uutu ustaas ci jataay bu mel nii kon ñu ngi ndokkeel suñu bopp di nuyu suñu bokki muqaddam yi fi nekk yëpp waaye ci njiital kilifa ak jataay bi muy seex Baba ak mboolem waa liwaawul am di waaye di nuyu surafaa yi nga xam ne yàlla baaxee nañu ñu ñëw teew ak ñun ci guddi gi nar ñu koy barkeelal waaye itamit nar ñu koy taaralal ndax ñun lépp lu baxee ko ci sang ba rek bu ñëwee sang ba la ci ñun kon daanaka jarut guddal aaya bi moo présenté conférence bi jàngkat bi def atul istilal eh, ñu ngi leen di wax ne kenn ku ne na ubbee ndabi xolam pour déglu waxtaan bu fekkoon ne nit ñi dañ koy dégloo nim ko war a dégloohee day mel ni buñ waxtaanee ci dara buñ fa baxee ko kenn ku ne war nga ca am loo mën a seedee lu wane ne taataan nga waxtaan wa mu ngi mel ni rek ku xam diw su nit ñëwee présenté boppam lu bokk ci diw walla lu diw di laal bu niinut xeñut dañoo xam ne day wax rek waaye présentation ba gën a rafet ba gën a ba gën a jaadu mooy lekk lu niin daal boo ñëwee say loxo ak sa gémmiñ moo ko war a wone kon ñu ngi waxtaanee jikko buñ fi baxee ko kenn ku ne war ngay fexe ba sa jëf Nek jëfi yonenti yalla muhammad wala sa Nek nek di Melokan yonenti yalla muhammad kenn mënta wax nak ne lo dege ci yonenti bi rek def ko comme photocopier waye war nga ca am Nang lo xamne ne danañ xam ne ci yonenti la baye ko ta nak lepp lu baye ko ci yonenti ci jikko ak jëf ak melokan amu Darlu lu cey tuuti amu dit lu ci pertement di top kon serigne bi ñu ngi lay wax bismillah dégg nga legi rek bi la Cheikh Abdou bakhi di wax ci gannaaw ndigal boole na la ak ñaanal yalla euh yaakar ne insha allah bu fi bagage neeku do itam ndigal rek ak ñaan yalla gu gu nangu gi yaakana fokk nga yabli fi dara waxuma la bi nga ne bagage yaang fi ba para hand ak ñaan yalla gi kon ñu ngi lay wax bismillah Seydi ali arasim fal yatafadal maskur a'udhu billahi minash shaitani rajim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 وانواع صفهما على الاطلاق مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم نيس رضي الله عنه مبكي جددي مبكي طالبي ني واخ نيب السلام عليكم ورحمه الله ماغي نوي نيب di ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bis bu màgg bii moom lañ dajee ngir màggal kan mooy yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yërmande la joo xam ne yàlla moo ko kaste mu nekk hàddiya mu jël ñu moo waxoon ana rahmatul muhdat man maay kado bi nga xam ne dama fees dell ak yërmande ñu ngi sant yàlla bu baax bu ñu yàlla mayee ñu dajee di ko màggal waaye di ko waxtaanee di waxtaanee ay jikkoom ngir man koo rey ndax yonantu bi sallallahu alayhi wa soo ko reyee rek yaay nekk nit ki gën ndax mooy ki gën ñépp di jagleel nuyoo boobu sangi jotaay bi taari jotaay bi ñuy waxtaanee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ay sëtam teew loolu dafay wane rek ne jotaay bi yàlla nangu na ko suñu sëriñ Oustaz Aliou Ndao mi nga xam ne moom lañu ñu wutu fii danañu jàngal ci daara ja ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci teewaayam ci mbooloo wala dewetam teew dafay garant dafay garant mbooloo ma ba nettali ñu xikaaya boobu nga xam ne wax yàgg nañ duñu ko nettali mooy waaju sàgg noonu lool ba mel ni man lu baax lu ñu woote ci ñëw safaan rek bés mu koy génn àdduna ñu di ko suturaal di ko jullee am kenn ku ñëw teew ci fekk mi ngi sol ay sagar sax ñu ne ko puusal demal ci ginnaaw ak sa sagar yi may kilifa yi ji kanam waaye ànd ak yëpp teew na ci jullee gi bañ jullee waa ji ba denc ko am kenn ci mbokkam yi ku ko gis ci barzaq laaj ko yow nu yàlla def ak mu ne ko xéewal yi bal sax maa yonent bi ñoo bokk benn appartement waa ji dokaa lu xew ak ni nga sàgganee woon lu baax li ñu oote yow doo ci ñëw yow safaan rek foo rek moo nekkoon sa dund gi lan moo la may lii mu ne ko bés bi ngeen may jullee am na benn waa ji soloon ay sagar teew ci jullee gi sagar yooyu mu dëbb daaxe woon am na ci morceau boo xam ne dafa bokkoon ci yére yonent ci mbubb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barkeeg mbubb yonent bi bi teewoon ci jotaay bi tax na yàlla jéggal ma doyut sax jéggal ma waaye daf ma boole yonent bi benn appartement waaw bokk yi su fekkee ne lu mbubu bu yonent bi soloon rek ci si la yonent bee ko teg ci yaamam rek simbi ko mu mën a fekk nit ku sàgganoon ni man texeel ko doyut mu bokk boole ko yonent bi ñu bokk benn appartement dëgg dëgg su fekkee ne sosu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teew na ci suñu jotaay bi ma amul benn bakkaar bu fi nekk lu dul ne yàlla jégal nañu ko amul benn aada bu fi am lu dul ne yàlla faj na ko kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di di leen teg seen palaasu maam ndax foofu ngeen nekk waaye di nuyu Cheikh Mouhamad Dramé mi nga xam ne dañu wax ne ñun suñu waajur la dañu wax ne suñu ne suñu mag de déedéet suñu waajur la ndax dafa nekkoon ak Thierno copier Thierno nangul Thierno liggéeyal Thierno xitmaal Thierno ba ilaa yow bi naa aasa ni nekkee woon ak Thierno ba léegi bàyyi mu palaasu Thierno bu Thierno nekkoon fi mu doon dundee ba Thierno nekkoon adab bi mu ko joxoon continué na ko euh, ni mu meloon ak Thierno mottali na ko tamit ci ay njabootam kon kooku Thierno rek la ni Thierno dundee woon ak bàyyi loolu rek la Thierno ba mu xasee ba xool bàyyi mosta gest mosta xemam leneen Cheikh Mouhamed Dramé mii nag démb keroog bu ne jàkk Thierno ba ànd ak moom nit dana ànd ak nit ba ci yàgg sax di ko xemem walla muy gessoo waaye moom mosta gestu mosta gestu te su fiyanke gestu baaxul ci moom bu gestoo rek lu bëri daf koy raw ci béy bi am na benn xikaaya bi ñu nettali yonent yàlla Suleymaan xam nga moom dafa daan dégg làmminu picc yéeg xorondong yéeg lépp lu wax ak yàlla may na ko mu dégg bés mu dégg ñaari picc yoo xam ne dañoo toog picc mu góor ak mu jigéen picc mu góor mi dafa bëgg picc mu jigéen mi maanaam si ko labat ma wax ko ci langage bu ko ndaw yi mën a dégg doon doxaan ngeen baal ma pour a dégg ne ko daf bëgg bëgg ma man ba ma bëggee lu ne laa lay defal lu ne dinaa la ko jox lu ma am danaa la ko jox picc mi ne ko bëgguma la <clears throat> mu ne ko waaw léegi nag danaa la jox lu gën a lay gis nga ku suy Souleymane bee nguuru Souleymane bi ba bëggee man nangu ko jox la ko xam nga wax ku bëgg rek góor ñi moom bu ñu bëggee lu ne dañ la koy dégg picc bi na ko bëgg ma yonent yàlla Souleymane dégg leen daal di muñ oo leen ñoom ñaar bi ñëw moo picc mu góor bi yow yow yow maanaam yow yow yaa moom sama nguur gi ba jël di ko maye yow baax dañ koy may ay jigéen joo bëgg maanaam sa picc mu jigéen moo bëgg ba pare daal di laaj picc mu jigéen bi ne ko lan moo tax yow it yow kii lim la proposé yëpp ak lim la wax yëpp ne la bëgg na la sama nguur gii li mu gis nga mu toll mu ne daf la koy jox di tax dàngoo nang d'accord mu ne waaw bi muy wax ak man dafa am benn picc mu jigéen bu saf mu gestu di xool ni mel mu ne gestu boobu mu gestu rek laa xam ne dëggul ci mbëggeelam moo tax li ma wax yëpp doomu ko kon nga gis ne gestu baaxut nekkete waxam ji ni muy yëpp picc maa ngi koy seetlu ndax li muy wax méngoo naag li muy def Cheikh Mouhamad Daal mi nag mosta xemam daa mosta gestu daa bi mu xoolee Ceerno ba léegi rek moom la xool kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax duñ guddal lool ci loolu ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi fi teew ñëpp kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa wàccuwaay ndax ku bàyyi sa itte yëpp ñëw teew ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek kilifa nga kon tant bi yëpp ay kilifa leen maa ngi nuyu ñëpp waaye da jeg leen nuyoo eh, ki nga xam ne moo sabab lii muy Cheikh Baba Diallo ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di am mbégte bu baax ci lii nga xam ne moom la taxawal ndax ndaw ci waxtu wii nga taxaw nekk xutwa di xàll yoon wi du pour yow waaye pour mboolem jeunesse bi nga xam ne ñi ngi nekk sa ginnaaw ñu xam fan lañu war a seen tànk te si nga loolu su fekkee ne mi ngi bëri ci yoon wi yoon wi sox du ci doy gis nga tali bi tali bi bind yooyu ci ci nekk ak tablo yi waxtu woo ko xeebee ne doo ko liir danga am foo xam ne tali bi dana fa dëngee te su fekkee xooloo tablo yi mën na laa mën na laa mën na laa yóbbu nga accident moo tax baax na ñuy samp ci yoon wi ay tableau loolu tax mu xaddam yoon wi mu xaddam yépp ay tablo lañ ci léegoo léegi ngay dugg ci dëkk ñu def la tëgg yaa ngi ci dëkk nangam wàññil sa vitesse nangam ak nangam loolu tax muqaddam yii Cheikh Baba Diallo nag ma ne moom doodaan la ci yoon wi tablo la ci yoon wi mbind la ci yoon wi ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi daw te di ko bàyyi xel su fekkee ne ni muy doxalee yaa ngi koy doxee yàlla mën na laa musal ci accident nit ki nga xamee ne noonu la ñuy jooyee accident yi ci tali bi noonu la ñuy jooyee accident yi ci kër yi noonu lañuy ñuy jooyee accident yi ci biir bureau yi noonu lañ koy jooyee ci politique bi noonu lañ koy jooyee ci njaboot gi fépp rek ay accident mi ngi am lan moo tax nag accident yi di am mooy dañoo dellu ci code de la route ñun ñëpp bu fekkee bëgg neen dawal ci kaw tali bi ñun ñëpp su fekkee bëgg neen bi ci jàmm la budda ñu jaar nga mën a dawal waaye tamit ñu tënku ci code de la route loolu nag suñ bëggee wax lan mooy code de la route ñun suñu àdduna dañuy wax ne mooy alxuraan code dañ la koy jàngal waaye li koy melal nag ci tali bi ay poto la ak ay bind ak ay nangam loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi ak ay kii góoram il faut ñu bàyyi leen xel waxtu wuñu leen bàyyee xel rek danañ am jàmm ci tali bi waaye waxtu wuñu leen bàyyiwul xel mbëkkante rek ak saan dégg nga de ak yàqu yàqule rek ci la ñu nekk te nag yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam junj nañu ko ci fanam yi mujj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kew bi nga xamee ne dem na ba tëdd ci lalu dee Abdullah ibnu Abbas moo ko nettali wala Anas ibnu Malik yonent bi dafa toog ne leen xat danal firaaxu waxaana mun xalahu ila allahi taala tàqali googu jege na dem ci sama borom jot na saxaaba yi jooy mu ne leen su ma dee na ma nañ ma sangee wax leen li bëgg yëpp saaba yi ñu ne te kew bañ demee ba gis ne yonent bi dafay tàqali koog ñun mu ne ñun ñëpp ñu daal di yuuxu ñëpp ñu commencé di jooy yonent baa ngi dem te moom mooy wax ma bi yonent baa ngi dem te moom mooy woykaay bi yonent yàlla mu ngi dem te moom mooy jàngalekat bu mag bi ñoom ñëpp ñu commencé yëg weetaay yonent bi ne nag bu leen jooy taktukum ala mahajjatil bayda wa taraktu lakum wa'izaini natiqan wa samitan fa natiqul qur'an wa samitul maut yunus bin bulen goy bayina len ci yoon wu leer nañ moy bayina len ci yoon wu juk buñ tabax am ay mandal nga am ay ko dalaw kon nak bulen jaxle bayina len ñaan nak ngeen ci xol moy de ak alquran ngeen ko fatali bo ci benen riwaya mu na fikum am lan taddilu maa tamassaktum bihima kitaaballahi wa sunnati bàyyi naa la ñaar yi nga xam ne du ngeen réew mukk fekk yéen a ngi koy jàpp benn mooy alquran ak sama sunna te ku ne xam na ne yonent bi sunna mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim dan def lim dan wax liñ def ci kanamam wax ko mu wéeru ko looluy sunna kon kay buñ jàngatee ci ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp neen ci lim ñu bàyyee yonent bi mooy alquran ndax ndey Aysa bañ ko laajee lan moo nekkoon jikko yonent bi def na kaana xulquhu quraan jikkoom moo nekkoon alquran kon nga gis ne ñun am jàmm suñ société am jàmm ñu nekk ci jàmm faw rek da nga dañuy jàpp ci yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam jàng ay jikkoom daal di koy meloo kon nag ñu jox ñu benn laaya joo xam ne moom la ñu a waxtaanee laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla mu ne na ngeen jël yonent bi sallallahu alayhi mu nekk seen woykaay man nag ma jël ci rek ñett jikko ndax temps bi dafa commencé naa guddi te jotaay bu ëpp solo mi ngi ñëw moo tax kon faw rek danaa ko gàttal ma jël benn bayit boo xam ne bàyyi moo ko tagg yonent bi sallallahu alayhi ne ko yuxli bila sababin yuti bila ajabin يعفو بلا غضب فتي سجاياو mu ne jikko yoonu yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dangay kaweel aw nit te du am benn sabab loolu jikko bu kawe la te danañ ci ñëw yuuti bilaa ajabin dangay maye di joxe te doo yem li ngay maye yaafu bilaa xadabin dangay jéggale te du ànd ak mer mbokk yi ñett jikko yoonu bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu lañ war a jàngat ci jotaay bi jikko la yoo xam ne tey ñàkk nañ ko gis nga lu ëpp tey ci ñun lu ñuy xeexee mooy dafa bëri dañu bàyyee carton yi jël appareil yi maanaam lu nekk loo gis dañoo bàyyee carton bi rek jullit ñu bàyyee ñu tur yi jël jikko yi loolu dañuy ñuy xeexee ba pare lépp lu ñu bëgg ñemeloo ñu jël ko mu mel ni fooyekaay te fekk du fooyekaay bi ñu la indilee fooyekaay bi suba ñu indil la jëmm ji dama ci joxe mel misaal rek ci benn conférence ma doon def ci ay xale yi jàng ni ñuy fexee ne xale yi ak di leen ñemeloo ak di leen bëggloo mbon dafa am fu ñu koy commencé maanaam nga. lu moo joxoon na ci benn point ci benn misaal mooy xale yi fooyekaay yi ñu amee dañ koy bàyyi xel ku ci am sa kër sa xale na nga bàyyi xel li muy fooyee mu ne boo gisee xale yi ñemee yow xaj xale boo gis mi nga amee xaj kër boo gis ñi nga amee xaj mu nekk ci kër gi te dérangé wu kenn te mu nekk ci xadis bu leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xaj bu nekk ci kër yëm ma malaaka yërmande yi du fa dugg nga gis ne feebar yu bëri sax nag ci àdduna mu ngi jugee ci mala yooyu lay njëkk jugee ndax nit ñi dañuy bëgg di amee xat te seen lekk yi xaj waa lekk xamuñ ko duñ contrôlé ndax xaj baa ngi lekk bokk ak ñoom ndax wala bokkuñu woon ak ndax ndax boo demee ci sariyaatul islaam yi dañ ne la xaj su fekkee ne dafa laal sa ndax da nga koy raxas juróom-ñaari ndox bu mujj ba nga xoole ci si nga lislaam dafa sew da nga koy gis nii rek nga yaakaar ne ne booy boo demee ci da nga xam ne xaj am na ay tooke ak i feebar yoo xam ne bu laalee sa ndax daf ko ci bàyyi kon nag kenn ku nekk sa kër ku fa am xaj mu nekk ci yow na nga fexe mu jógee ci sa kër ma ne nag bu ko bëggee miin dañ njëkk a defal ay nunus mooy li ñuy wax nunus yooyu defal ay xaj defal ay ay ay ay golo defal ay nàngam nag di ko jaay ci marché boo amee sa xale bi ko jox xam nga bu muy nunus xaj kooku bu yàggee soo ko joxee kuti da koy mën a téye du ko wegal da koy accepté mu koy teg ci kaw daram di ko fanaanoo dafay jàpp ne dem ba gis ne yooyu xaj moom moom lu valable la xeex boobu lañu commencé ni ñu ko defee ci nunu si ci xaj yi noonu lañ koy defee ci facteur yépp ñi ngi jooy benn bi ñu wax góor jigéen ngeen baal ma balaa ñuy la wax ne la góor nga wala jigéen nga nekkal yi ndax war nga ko mën a nekk ndax war naa mën a nekk ci solin gi lañ ko commencé te bàyyi ñu ko xel nag li ñu njëkk a def moo dañ lay indil ay yére yu xat moom peewu lañ koy sol ko mu xat lool nga dafa jàng ñi ne la yëgal ko ngay sol ñi ne la wàcceel jéneen sa njit laay ana góor jéneen yooyu la ñu commencé ak soo demee nag ba miin ba sol lu xat miin ko miin sol ay couleur ay nangam su ko defee nag ñu dugg laa indil mbir nag su ko defee pour nga accepté ko dafay yomb moo tax kon faaw ñu delluwaat ci njàngale ak yonantu boobu sallallahu alayhi wa sallam ak i jikkoom nga xam ne loolu yëpp lislaam bàyyi na ko xel bu yàgg ba ñuy booy demee ci risaala di jàng def na la boo amee ay xale ñu nekk ci kër buñ bokk mbàjj buñ bokk lal xale yi ndaw lu mu ndaw ndaw ndaw nga amee ay doom yu góor moom góor moom kenn mu dox leen bopp waaye ay góor laa wax boo leen boolee nekk soo mënee buñ bokk lal soo demee ba mënoo ñu ñàkk bokk lal ndax amoo moyen bi mënoo xaajale ma laay fexeel ba kenn ku ne na am mbàjj boppam loolu la lislaam wax yu sew sawaan yooyu nag nekk ci kër yi yooyu dañ koo jàngat te yonent bi moo ko jàngale te noonu la jikkoo woon noonu la yooye woon këram suñ ci delloo rek dañu nekk ci jàmm kon dama ne dañu delluwaat ci thème bi mooy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam li lay xamal ne li ko doon aar ci mag li ko doon dimbale ci màkk li ko dooleel ci màkk yépp ay jikko la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko moo ko may li am yépp li am yépp yàlla ci ndabal jikko la ko ko la ko ko la ko ko yenk wal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne dem na ci xaaru Hiraa di wéetal yàlla di wéetal boromam nekk fa di jaamu yàlla Jibril daf ko fa fekk ne ko jàngal yonantu bi ne du ma jàng xaw ma jàng mu jàng miinu ko jibril ba rek moom comme ko jàngee ni ñëpp ci gàmmu yi ba xoj ko sonal ko ba mu ñëwee ci xadijatu sayyidatuna xadija ne ko man de dafa am lu may dikkal ci sama su may jaamu yàlla di ma sonal di ma xoxotal waaw ah, man daal dafa mel ni damay bëgg a dof man daal dafa mel ni yàlla dafa may bëgg a gàcceel mu ne ko wallahi lan yuhdika allahu abadan yàlla du la gàccaal mukk yow yonent bi ndax lan innaka la tasilu rahim yow yonent da ngay jokk mbokk wa tuminul kalla da ngay teggil nit ñi coona wa taksimul maadum da ngay fekk lu amutoon nga amal ko da nga def wa tuqiru dayfa da ngay dalal gan wa tuinu ala nawaaibi lxaqi fu dëgg nekk rek da ngay ànd ak moom kon nag yàlla du la gàccal suñu sëriñ oustaz daf ñu ne ndomba gi yonent bi takkoon ba nga xam ne bu ko takkee yàlla du ko gàccal mu ne téere yi ñoo ci newoon yii la yonent takkoon mooy ndomba gi yonent bi takkoon kon nga bëgg a mucc yàlla du la gàccal fi nga bokk mukk ngeen la waay na jokk mbokk mbokk yi jokk mbokk li ci nekk ci ngëneel li ci nekk ci mbaax li ci nekk ci mën a guddal fan lu ci nekk ci mën a aar nit bu ko nit ñi xamoon ñëpp danañu jokk suñu bopp yi bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko muccaloon mooy bokk na ci ay jikkoom mooy daf daan jokk mbokk kon nag maa ngi wax nañu ñëpp nañuy jokk suñuy mbokk mbokkum deret ak mbokk ci yàlla ñaar yooyu moo am ci deret ak ci yàlla maa ngi dénk ñëpp nen jokk mbokk jokk mbokk nag duñu xam ni noonu lañ koy defee maanaam am sa mbokk yow mi nga xam ne yaa nekk ci famille yàlla denk la doole ak amam yow yaa war jox sa mbokk mi nga xam ne dafa amul yow mi am yaay jokk ñu amul famille yi nag léegi dangay ngay gis ku bokk ci famille am ay mag ak yu rakk ñëpp mu mën fa ñukk dem uti mbokk moo xam ne ñoo bokk xaalis ñoo bokk business ñun dërëm ak dërëm mën a ànd diw dafa am oto man ku amul oto man maa ànd ak ku amul nangam loolu du jokkoog mbokk loolu du lislaam te bëri na tey jafe-jafe yi am loolu moom moo ko indi mooy nit ñi jokkatuñ seen bopp yi képp ko ci sax ma ngay xeeb ku amul di jéem a jokk ku am loolu ma ne musiba la ñu ñëpp nañ ci delluwaat ginnaaw di jokk suñuy mbokk rawatina nag suñu mbokk yi nga xam ne dañoo néew doole nañ leen di jokk te nañ leen di dimbale bokk na ci beneen bi mu ko taggee wa tuxmilul kalla da ngay teggi coono da ngay fekk nit ku naa eno ay coono yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa nga teggi ko coono bi jaamu yàlla bu rëy moo ci nekk loolu sax mun nga ko jàng yonent bi def na defal na ko bàyyam bàyyam bi ñu wax Abu Talib di bàyyi Seydina Ali ibn Abi Talib ku ne xam na ne Abu Talib dafa néewoon doole amutoon am am bëy te bëy woon njaboot loolet يونس بن صلى الله عليه وسلم في سمو تجلى بن حاسم يب لنا سن باي ابو طالب دفني ودوله تفين ديزنا نح نيبو كين كو نيك سي نيون نكو جيلال بن دوم عمل كوكو نح مو مانا اويف خولن يونس بن سيستم يب تا بوكو نين دجالا كين كو ني جوني جوني ني دوم جيلال كو تيب لول دي ديمبال دي نين دجالا كين كو نيك اي جوخ كو غي مو مانا سولو ديمبال دي yonent bi nag kenn ku nekk na ko jëlal doom moom nag mu tànn Seydina Ali ibn Abi Talib nga xam ne mooy maamu sëriñ yii tey jël ko nag amee ko ci këram yar ko moo tax ñu koy wax karrama Allahu wajhahu mësta sujjóotal xaw moom Seydina Ali ndax ci keppaawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sala sala yawo loolu mooy dimbal nit dana fekk nit mu ñàkk ngay liggéey moo xam commerçant moo xam danga ouvrier nga nga am sa mbokk moo xam ne mu ngi néew doole bul ko dimbalee dajale ay saako ceeb bu ko indi da koy rusloo dafay jeex mu ajoo waat te du mën a nekk waxtu bu nekk di la ñaan li sa yonent bi defoon mooy dafa jël benn doom seetal ci kenn ci doomam yi nga jël ko indi ko ci liggéey ba nga nekk bu baax bi nga am expérience nga yaa ko ci formé ko ci ba mu mën liggéey ba nga dimbale ko alal ber ko ne ko demal nga continuer te nga nii la ñuy dimbalee mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa nii la jinnee woon fekkoon na Abu Taalib diis ci njaboot ak ñàkk waaye mu oyofalee ko jël doomam yaa ko di Seydina Ali ku ne xam ne ne defal na ko lu rëy ci Seydina Ali kon yonent bi sallallahu alayhi wa dafay fekk nit ku diis mu oyofal ko tu'minul kala bokk na tamit ci ci ci tu'minul kalla yaatu na lool duñ ci mën a dugg fekk nit ku diis lool réew jël ay aada jël ay nangam comme li xew diine ji jël lu nekk nga jël ko diisa sa bopp nga ñëw dimbale ko indi ko alquran ak sunna ooyo falal ko ko kooku defal nga ko ci umilul kalla nga nekk nit koo xam ne mu nga bëgg jaamu yàlla am na ñu bëgg jaamu yàlla di julli waxtu yi naafila guddi yi di woor di saaqa di def lépp waaye nag am na kiiraay diggante ma góor moom xamu ko xamut yàlla nga nekk ci koñ bi képp koo xam ne sa digganteeg sa yàlla sa digganteeg sa borom am na kiraay bu ci nekk nga dindi ko rek yow yaa ngi def tuminul kàlla comme ni Cheikh kon bokk na ci jikko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy daf daan def tuminul kàlla dafay fekk nit ku diis yenu lu diis tiis ci diine diis ci àdduna mu fexe ooye falal ko loolu nen ko roy ci jikko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wa taksimul maadum dafay fekk lu amutoon ci dëkk bi mu fexe mu am fa ku ne xam na ne loolu bëri na ay misaal da nga fekk ku nekk ci dëkk yawoo fa juddoo fa yaa ngi dégg yàlla may leen nga jàng xëy nga xëy am wërsëg comme ni waa Saalum di def waa Kaolack Kaolack gi lu fi nekk ci ay nit yu am xam-xam mën a développé Kaolack am xam-xam yépp tey yàlla may leen ñu am ay ay mansib rek ñoom ñëpp tuxu Dakar dëkk fa bàyyi Kaolack loolu du loolu du jikko bu baax du jikko yonent bi di buum jàngale bu la yàlla mayee ci xam-xam dellu su waatal ci sa dëkk nga defal sa dëkk nga defal ko sa mooy nga fekk lu fa amutoon nga jëm ko faa amal loolu kon képp kuy ndaw koo xam ne yaa ngi ci yoonu àdduna moo xam ci politique nga nekk moo xam ci liggéey boo mën a nekk bu la ci yàlla mayee xiba fexee delluwaatal sa dëkk comme réussir nga ci nga xemem loo ko ndaw yi formé leen ci ñu mën a liggéey loolu ndax ñu mën a réussir bu dee alal nga am dellusiwaatal Kaolack ma ngay taa canalisation yi Kaolack mu ngi taa da nga daa amul Kaolack hôpital yi daa nekku fi dellusiwaatal ci sa dëkk bi nga dëkk nga indi fi ngëneel bi nga am alal ji nga am nga bokk ko nit ñi loolu mooy wa taksibul maadum bokk na ci tamit nga fekk dëkk bi jeunesse bi ñoom ñëpp ñu xam mooy làmb football da nga de fuural dem soirée Cheikh Baba Diallo ñëw indi leen lu mel nii ne leen samedi yeeg dimanche yi mën leen di ko def ay daayira bu at mu jotee ñu def benn gàmm gu mag jàngat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi fi gàmm gu toll nii kon loolu taksibul maadum la fekk na lu tumuraanke woon wax dëgg yàlla tumuraanke woon na ndaw yi jël ay alal soo demee ay jamono ci ginnaaw ndaw yi jël dajale seen xaalis di def gàmmu amoon na de waaye yaatoo wutoon nii léegi nag loolu ku ko indi ci dëkk rek saxal ko yaa ngi def taksibul maadum kon Cheikh Baba Diallo li indi nii def na ko ci jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk wattu xiw dayfa ak teel gan dafa am solo lool naa Mawlana Cheikh Baye Niass dafay wax ne ñun lépp lu ñu am rek ci gan la jóge tarixa bi gan ko fi indi diine ji gan ko fi indi bu doon dañuy toog rek di xaar buñ dëkkee duñ mos a am diine duñ mos a am tarixa kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku daan teral gan la ku daan teral gan teral gan nag du ci ay lekk rek sax du ci ay naan rek waaye teral gan sa jikko teral gan ci wax ju neex teral gan ci ci lu nekk loolu tamit bokk na ci ay jikko bu njëkk ba mag ñi dañ koo bàyyi woon xel dangay gis man de mu fàttali ko bu yàgg suñ kër fépp fuñ nekkaan dañ daan def boolu gan boolu gan bu ñu toggee añ dañuy def bool bu mag def ko muy boolu gan suñ demee ba ngoon jot bu gan jëw ñu jox ko xale yi gis nga mag ñi sunna bu rafet boobu ñu nekkee woon loolu bokk na ci li aawoon njaboot gi li aawoon kër gi te dépense yombu leen soo xoolee ñun léegi jamono tey lañ gën a am jumtukaay yëpp tey lañ gën a ubbeeku mais tey lañ di dépense ak yooyu gën a jafe dund tey la gën a jafe ci ñun ku ne xam na ne mag ñi ay ŋooseek ay nangam lañ daan bayee te àll yu ñu daan bay ay fas ay nangam tey ñu am ay tracteur am ay ay ay machine yoo xam ne da ngay toog rek ci benn waxtu nga bay ci ay hectare te ba léegi dund dafay jafe barke moo amatut ci mbay barke moo amatut ci liggéey bi ndax lan jikko yonantu boobu sallallahu alayhi wa sallam moom lañ bàyyi kon nag neen delluwaat di taal ay gan jàkka yi ñu di ko ubbi bu nit amut fu mu fanaan dib jullit bu ñëwee ci dëkk yabal leen ko ci imaam imaam yi tamit nen yaatal bu baax loolu moo amoon culture yooyu nañ ko delloo si waat ci suñ dëkk yi loolu buñ ko defee léegi nag obèse yi ñu ubbi nag pour nit ñi ku tukki dem fenn dëkk gis nga tey lu mu jur fopp foo taw yaay dégg xale yi jël leen appartement ña nga foofu ña ngi fay def weekend ña ngi fay def nangam luñ ubbi du suñ culture du suñ dund li ñu xamoon mooy nit bu ñëwee ci dëkk bu xamul dañ ko yóbbu ci kër boom dëkk ba yóbbu ko ci kër imaam mu dalal ko surveiller ko bu dee ku baax dana ko dana xam bu dee indi bu indee safaan bu ko imaam dalalee ci jàkk ji du ko ñemee def loolu moo xewoon ci dëkk loolu lañ amoon muy ay valeur yoo xam ne tey ñàkk nañ ko te yooyu yëpp du ay aada mais ay jikko la yoo xam ne jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ndax ku daan teral gan la maam mu jëlee ko ci maamam moom yonent yàlla Ibrahima ku mënoon a teral gan la bu tegaat ñam dafay dox kilomètre fii kilomètre fële di wër ku mu ak ñamam bi kon nag loolu ñun wax nañ koo dekkalaat ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan dimbale dëgg fu mu fekkaan dëgg jàpp ci taxaw ci ku ne xam ne ne loolu mun nga koo jàngal mooy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax moo njëkk a politique bi ñuy wax naan sëriñ du ko def nit nitu diine yi jénne leen ci politique yéen nangam nangam nangam dama ciy joxe ne misaal la xewoon ci suñ daara ja moom la ñuy niti politique yi def rek bañ nekkee ci daara ji maanaam boo amee ceeb wala nga am cere cere xam nga cere di ci def kii ak nii daara ji yëpp tiim la xam nga ñëpp dañuy bëgg a ñëw bokk ak yow affaire bi soo ci bëgg ta maye da nga ciy tëfli ah, boo ci tëflee nag su ko defee ñëpp seexlu ko nga mën a tiim bool bi nag lekk ba doyal niti politique yi noonu lañ def ñun dañoo jël politique xam ne ñun ñëpp ko koo bokk te ñun ñëpp a ci war doxal te ñoom am na mbaqus su nekk ci biir ci seen politique bi ñu commencé tëfli ci fenn ah politique dafa am fen de yow nag comme sëriñ nga doo ci mën a bokk ah tëfli ci wuruj ah politique da ngay wuruj nag ku ci mën a nekk da ngay wax loo xam ne doo ko def loo def loo nar a def doo ko wax ne la nag comme nag nit ku baax nga yow waroo cee ñëw nii lañ def ak ñun ci politique mais politique du loolu lii politique mooy koo xam ne dafa gëm réewam bëgg réewam taxaw ci li développé réewam loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a def nee moo njëkk a kewoot ba nga xamee ne xilful fudul yonent bi fekkee ne ko mu amoon ci màkka ñoom abu jaahli nag ñu ko mel lu yoon seen itte mooy ku fa amul alal rek ñu néewal la doole ku fa jaar amee say marchandise buñ ñëwee dañ lay taxawal luñ ci bëgg ñu jël ko te duñ la fay ay waxamaane nag taxaw ci màkka ñu def lu ñuy wax xilful fudul yonent ñi ngi dajee ci kër Abdullahi ibnu Jadaan yonent bi fekkee na ko te teew na ci milité na ci ñoom ñëpp ñu takkatoo ne nekk neen ay ndaw yoo xam ne fii ci biir Màkka képp koo xam ne dañ fiy néewal doole ñun danañ taxaw delloo la sa sa alal kuñ fi amee bor doo ko fay ñëwal ci ñun kalaame ñi ñu delloo képp ku fiy néewal doole ñëwal ñun ñu dooleel la loolu mooy baatu politique fekk nit ñi amut àq ñii jël alal ji di ko seddoo di ko lekk bàyyi ñu ñàkk nga naa taxaw nañ taxaw ñun fexe lépp luy ñëw ne tasaaroo ci askan bi kenn ku nekk li nga war a jot nga jot ko loolu yonent bi fekkee na ko participer na ci kewoon loolu bi mu ko defee nag jëriñ na ko ndax Abdullah ibnu Jadaan moomu ñenn ñi defoon ci ci loolu keroog bi ñu ko defee xisaar ci màkka ne dootuñ jëndanteeg moom dootuñ euh, leblanteeg moom dootuñ takkanteek moom ñetti at yoo xam ne banu xaasim noonu lañ leen def ba der yi ñu doon tëdd sax moom lañu doon xooj di ko lekk di ko baxal di ko lekk ña desoon ci mbooloo ma ñu ñoo dajee ne mbir may def ba nu xaasim du dëgg du yoon danañ ko dindi yonentu bee ko jëmbatoon participer ci parti bi bi mu màggee kew biñ ko neree xañ àqam ak ay mbokkam parti boobu moo taxaw dindi loolu noonu kon dama ne politique du yëfu àdduna nii rek du ay naxante waaye mbiru diine la ñun ñu nekk ci diine ji nañ ci dugg jël ci suñu responsabilité dugal ci dëgg wax dëgg wax da wax luy am da nga de jël li ñu war a def def ko fu ñu ko war a def loolu dama ne jikko yonent bi sallallahu alayhi wa la daf daan fekk fu dëgg am rek yonent bi milité ci fépp fu dëgg am rek yonent bi ànd ci te doxal ko kon loolu bokkoon na ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa kon ne ma ne gàllaaj gi nga xam ne moom la yonent bi takkoon suñ sëñ Oustaz Alioune ne ne boo boo wëree ndomba yi yonent bi takkoon da nga fekk ñetti téere yi moo nekkoon ci ndomb bi kon nag nga bañ a jaaxle nga ne damaa réussir sama àdduna ba dama cee tiit ndax danaa tekki ndax danaa nangam jaw dem ci ay sunguf jaw dem te jaw dem bu xaara jëlal jikko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nga jikko woo ko rek yàlla dimbale la waxtu woo amee ay jikko yu kawe rek dangay ngay jàll nit ki pour mu màgg pour mu am lim bëgg du ci ay téere du ci ay nangam mag ñi luñ am amee wuñ ko ci ay téere ci ay ci ay ci ay gàllaaj ameewuñ ko ci ay nangam loolu dañ ko doon def ngir jaamu yàlla rek waaye ñoom lu ñu am yépp ci jikko lañ ko amee ak bëgg yonantu bi sallallahu alayhi ak topp ko ak roy ko kon dama ne buñ bëggee ñun jeunesse bi bëgg ñun ndaw ñi ak fu jëm faw ñu delluwaat ci lii yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon bi mu nekkee ndaw ba xooy si yépp na la dal ci kawam di ko sonal di ko def yépp yàlla muccool ko ba mu taxawal diina ji tey ba léegi ñun ñëpp ñi di ci dund lolou lu ko may moy ay jikko yu nekkon ci mom ay jikko yu kawe al birru la yabla mbax du màgget muk la yonent bi nekkon la baxalon sahaba yi lolou rek mom mo ñuy baxal kon lolou bokku na ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi jàng li ñi jàngale legi ma wat ci baytu bay bi ma waxon ne yu'li bila sababin yonent bi sallallahu alayhi wasallam da fay kawel aw nit te du am sabab loolu jikko bu kawee la léegi da ngay gis nit ku jàng am xam-xam war a toog fu kawe jàngale ñu ne déedéet du fi jàngale parce que santu nangam nit nekk ci dëkk bi am xam-xamu yàlla mën a dindi kiiraay mën a doxal diina ji ñu ne ko déedéet nekkoo satu diw dox doo ko doxal ñooñu ñu ngi bëgg a kaweel ay nit bi sababin loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko def képp kum daan sabab rek du am benn sabab lu naturel rek lay nekk kon yonent bi yu'li bila sababin daf dan kawel aw nit to do am ben sabab bok na ci mbaxam ku ñu wax suwaqatu ibn malik keroog bi yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam di di gàddaay xuraysi di ko dab suwaqata mom dafa xamone mbedd lol monona xam mbedd xam xam xam ban heure nga fay jaar fo jugee makka bala ngay ag sangam sangam yaangi nek ci waxtu ci ci bab sangam mu daw utali yonent bi sallallahu alayhi wa ngir indi ko xurey indi bopam ndax xurey si nee ku indi yonentou bi ak abou bakkar dana lan jox sa diye sen diye ci nak jox la ko ci gëlëm jox la ko ci alal jox la ko ci alal yep mu daw nak ku jëli yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ray ko indi ko xolal yenem bi deme ba gis yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bu pour utali ko yonentou bi ne souf lekal suraaxata souf si daal di lekk suraaxata ba ci tankami soo axata jéggalu yonantu baal ma lii dootuma ko defati sama bàyyi danaan dëpp lii moom dootuma dalati yonantu bi ne suuf bàyyi ko suuf bàyyi ko soo axata soo axata baat dem ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bakkanu alal alal ko dikk mu demaat ba suuf lekk ko ba mu paase ndiggam mu jéggalu yonantu bi ne ko boo ko defaatee ba la suuf lekkee yaakaar naa ca xaaroon a nga jëm waaw doo jénnaat mukk moom jénnee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonantu bi jëlal sama jaaro bi nga amee ko gét gàdd boo gis rek am naa fay nag ki meew loo soxla nga jël ko yonent bi ne lépp lu ma soxla ci yow mooy nga wax ashadu an laay ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasulullah mu bañ yonent bi ne ko Suraaqa bis dana ñëw ñu jël ndëppal faay teg ko ci sa bopp bi waaw yonent ki nga xam ne dafa jug alal tax mu bëgg a dagg sa bopp bi rey la yóbbu ko nga gis ko yàlla may la nga mën koo tooxal nga jéggal ko mu buwaat nga jéggalaat ko ana lan mooy baalu nga ne ko di nga nekk buur kooku koy mooy yu lii bi laa sababin yonent bi def da ko buur te amul benn sabab sallallahu alayhi wa moo kawe jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon danaan kaweel nit ci lu dul sabab kon nag maa ngi wax nañu ñëpp kenn ku nekk cëf ba nga am nañ la ko jox te buñ ci xool sabab buñ ci xool fii nga sant ndam mën nga ko rek nañ la ko def lu bokk na ci suñ société léegi lépp lu ñuy xool rek dañu xool sant wala ñu xool yére ba wala ñu xool nangam waaye dañu xool ndax diw lii muy def mën na ko ndax am na jikko bi ndax am na qualité bi kon nag ne delluwaat ci jikko boobu nga xam ne moo jikko yonent bi salaa alayhi wa sallam mooy moom la ko bàyyi tegee ne lii yuli bila sababin dafay kaweel te du am benn sabab yuuti bila ajabin dafay maye te du yéem li muy maye kooku yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam maye dëgg yonantu bi moo ko dem def nit ñëw na ci yonantu bi ne ko yonantu yow laa gën a bañ ci li yàlla bind mu ne ko may naa la téeméeri gëlëm mu ne ko te tey laa la gën a bañ mu ne ko may naa la ñaar téeméeri gëlëm mu ko tey laa la gën bañ mu may ba muy juróom téeméeri gëlëm rek mu ne ashadu an laa ilaha illallah wa sallam kii du nit kii mayewut maye kuy xalaat na dana ñàkk kooku yonantu bi sallallahu alayhi wa dafay maye te nga du ko yéem maye te du ko yem nag ci ñun mooy nit bul ko jox ndimbal ba pare di ko weer am na lu xew ci suñu société léegi dangay gis nit ñoo xam ne tabaski dafay jot ñu ne yaay dañuy def ay ndimbali xaar jël ay gox ay kilifa yi boom kër dajale leen jël appareil yi di leen photo dugal leen ci internet bi nga xam ne du dañ ba ilaa yawmi diin nga ne rek leen di dimbalee benn xaw tabaski boo xam ne ci ñetti fan lañ koy lekk mu jeex mu wees ñu fàtte ko nga jël ko filmer ko tasaare ko loolu dama ne da ngay maye waaye yaa ngi yéem li ngay maye yaa ngi maye yaa ngi bëgg ñu yéem la ci li ngay maye yonoon loolu du jikko yonantu bi sallallahu alayhi wa man de nangu naa su fekkee da ngay dimbalaate nga bëgg a wan nit ñi ndimbal dajaleel ndimbal bi rek ne téeméer xale ngi ni dama koy joxe nga filmer ko waaye ñi ngay jox bu leen filme bu leen wane ay góor leen waaye léegi nag loolu moo xew surtout nag suñ bokk politiciens yi képp kuñ defar daa moom da nga ko wane te danañ ko photo danañ indi journal yi ñu def ko wane na ñoo indi fii nii ñoo def li ñoo def li loolu di jukko yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonantu bi daf daan joxe yuuti bila ajabin dafay maye te da nga de te du ko yéem suñ sooy ustaas nee na kuy dimbale nit dangay ànd ak guddi sa xarit boo naan guddi bàyyi ba guddi jot nga xam ne kër sàngam ñii amuñ wala ñàkk neen néew neen doole nga bàyyi ba guddi jot ba ñëpp tëdd nga daal di dem foofu ne ko am jëlal lii nga dimbandikoo ko yéen ñaar kese mu dimbandikoo ko ci njabootam ànd ak sutura ak dignité mag ñi bu njëkk ba fu ñu daan dimbalante mooy ci jàkka yi fajar buñ jisee koo xam ne julli na imaam noonu la ñu daan xamee ku ñàkk buñ ci julee jumaa ba julee fajar ba pare da nga gis koo xam ne dafay yéexantalu ci jàkka ji pour dem kër ga teeku sam nànk dañu xamne ki amul lu mu ci kër ga su ko defé nak imam dana fexe ni ñi dimbalanté ak mom bam am dépense te kenn du xamné sax ñak na dépense ci këram lolu mo nekkon suñu aaday dimbalante te nekkul luñu daan wane lolu mo nekk jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam mooy bi daf daan kawel yuli yuti bila ajabin yaafu bila gadabin daf daan jéggale te du ànd ak meer njéggal dafa am solo nen di jéggalante ci biir suñ bëggee yàlla dañuy jégale doomu aadama mënta jàkk juum mënta ñàkk njuum yàlla moo ko bindee muy juum dana juum ci diggante ak mam dana juum ci diggante ak moomam waaye nag yow bu la nit tooñee ngel la waaye dee ko jéggal yonent bi royal yonent bi sallallahu alayhi wa ci mën a jéggale yonent bi gàddaay na dem euh, euh, taayif ci ay nijaayam pour ñu dimbale ko ba mu demee ñu tooxal ko boole ko ay xale ay ay xaj ñu koy sotti xeer di ko sànni xeer ba deretam bi sax dégg nga de ba mu nàcc di deretam deretam di di dégg nga de di di di walangaan ci moom ba malaaka mi ñëwee ci moom yonoon na ko yonantu bi yàlla moo ma jox ndigal maan maay malaaka mi yor doj soo bëggee ma tàppalante doj rek dëkk bi yëpp ma bu ñoom ñëpp ñu dee ndax ni ñu la tooxalee yonantu bi daf ne allahumma ixfir haadal xawma فإنهم لا يعلمون يلا جيغالال ني دانيو خاموت تا امانة دا ام ني جين سي نيوم ньо خامنا دا نان گم لولو موي جيغالي تا اند تاك ميخ واي جيغال نيت بافا فوم توم غينا لام ديفون لام ما واخون لام ما نانغام نانغام جيغال نيت بافا دي سي بولاي واخ لول دو جيغالي دا نغا دي بو اند بو جيغالي بو اند تاك ميخ واي يونتبي صلى الله عليه وسلم داف دان جيغالي تو دو اند تاك ميخ ma tëjee ko benn xikaaya boo xam ne Cheikh Abdul Baaxi moo ñu ko nettali woon benn nitu yàlla boo xam ne yàlla daf ko mayoon ci yàlla may yépp may yu kawe lu ne xam na ko lu ne mën na ko mu ànd ak benn taalibeem boo xam ne def na ci yoonam lu ëpp ñeent fukki at di ko xitmaal di ko liggéeyal lu sëriñ bi wax mu def lu mu tere mu bàyyi bi mu demee nag ba feebar ba gis ne moom dafay génn àdduna mu oo benn xaritam kenn ci mbokk taaliba mi ne ko dama lay dénk nit bu demee ba wóolootul boppam dafay dénkaane ne ko dama lay dénk su ma demee ba génn àdduna bu may denc maa ngi ñaan sëriñ bi moom laa bëgg mooy sama sëriñ liggéeyal naa ko ci lu ma mën yëpp waaye daal suñ demee ba may jullee rek maa ngi ñaan mu tànn keneen bu ma jullee loolu la dénk taaliba bi biñ demee ba génn àdduna ñi ne kii de moom boo ko kenn jege kii moom dundam yëpp sëriñam la ko jox bu dee tamit sëriñam sëriñ bi dem solu ay yëweem ñëw mbooloo mi yëpp sàppe di ko xaar mu dem taxaw ci kanam ndax moo gën a yee ñëpp ci taalibe bi ba mu demee ba war a jullee rek taalibe bi bi nga xam ne moom lañ dénkoon ñëw ba ci sëriñ bi yootal la ko ne ko ah kii de sama mbokku la njëkk muy dem daf ma bàttale woon nee na dundam gi yëpp yow la ko jox yow la bëgg waaye daal dafay ñaan bésam bu mujj bii daal nga tànn keneen mu jullee ko mais yow daal bul ko jullee ah, sëriñ bi aliyeer mer lool nag am sax taalibe dund ak moom ñeent fukki at mu di la liggéeyal desut lu dul benn bés wóoluwula ci bésam bii sëriñ bi gàtt yebal keneen mu jiital ko mu jiital ko ba mu demee ci kër ga mu oo taalibe bi ne ko xanaa waxu loolu kese am na lu mu la wax mu ne waaw kay am na lu ma ci tegal nee na mi ngi ànd ak yow ñeent fukki at am nga xam-xam man ngaa jàngale man ngaa jëriñe waaye dafa am benn jikko bu mu seetlu ci yow dafa seetlu na yow doo jéggale yow képp ku la tooñ rek da ngay tasawuf ci kawam sëriñ bi nekk de sëriñ sëriñ yooyu la koo tooñ ma ne martaba dana daw sa kaw bàyyi naa la ak nangam danaa la damm dana yàqu mbooloo mi dana tas sëriñ yooyu la mu ne waaw nag ma gis ne moom mosta baal kenn te juleeg néew sàkku mbala damay bañ ni muy jëflante rek jaamu yàlla yàlla jëflante kooku moom man ñaan damay ñaan njéggal te moom daanul jéggale damay bañ mu ñaani yàlla njégal yàlla bañ moo tax ma sàkku keneen xoolal taali boobu ànd nag sëriñ bi waaye seetlu na sëriñ bi kon nag ñuy jéggale yonant bi bokkoon na ci léppam mooy jéggale lislaam sax njéggal rek la wax al islaamu yajubu ma qablahu lislaam lépp lu mu la fekkoon nga def rek daf koy dind daf koy seetal daf la koy jéggal kon nag dañuy jéggalante ñun ñëpp rawatina jamono ji nga xam ne tooñ yi dafa bëri nit fu nekk nit ñaa ngi ton ci internet bi ñii laa ngi ton ci whatsapp bi ñi naa ngi ton ci jotaay yi waaye nag yow na nga nekk ñi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam na nga nekk yërmande ci xeetam bi comme ni mu nekk woon képp ku la tooñ na nga ko baax képp ku la euh, képp ku la xam ne mën nga koo dimbale na ko dimbale ñun ñëpp nañ delluwaat ci jikkoo yonantu bi sallallahu alayhi wa rawatina nag benn jikkoo boo xam ne moom laay mujjee mooy yonantu bi ku mënoon a ku mënoon a suturaal nit la mbokk yi sutura dafa jot ñu jëmbataat ko ak kersa ñaar yii nii dafa manqué ci suñ société nit ñi amatuñ kersa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne in lam tastahi fasna ma shi'ta nit ko bu amul kersa mën naa def lu ko neex bu la neex mën ko def ku amul kersa defal lu neex mooy nit ko amul kersa lu ne mën na koo def moo tax nga gis nit ñi léegi lu leen neex la ñuy def li ku yonent bi nee na li kulli diinin xulxun wa xulxul islaami alxayaawu diine ju ne am na jikko bu mu waaye l'islam jikko bi nga xam ne moom la favoriser mooy kersa kersa bu ko nit ki amee rek lu bëri dana ko rus a def lu bëri dana rus yàlla dana rus ay kilifa dana rus mag ñu baax ñi ba nga xam ne dana rus a def safaan kon nag neen jëmbataat kersa ci ñun jëmbataat ko ci suñu ndaw xale da ngay am ci moom kersa mu mujj am ci yow kersa kon nag nañ jëmbataat kersa beneen bi mooy sutura nen ni suturaal jaamu yàlla yi nen ni bañ di wuññi mbóot loo xamal nit tasaare ko ci internet bi loo xamal nit tasaare ko luñ génnee ci tasaare ci lu bon nga partagé ko di ko jàllale ngeen la waaye bul nekk loolu bul nekk nit koo xam ne da ngay nekk mm, dégg nga euh, jaaruwaay yu bon yi tasaare waay yu lu bon yi del feeñal lu rafet yi tey nëbb lu bon yi nen di nëbbalante nen di suturaalante yonent bi nee na képp ku suturaal nit fii ci àllaaxira yàlla dana fii ci àdduna yàlla dana la suturaal ci àdduna suturaal ci àllaaxira kon nak ma ngi dénk lolu ñu ñep bu ñuy ndokk ci erreur nit ñi bu ñuy fetu ci faxastalu nit ñi bay wax na ne buñ démé yàlla wax na ne adama da nga ne kullu maa fil jannati taallama min khuruj adama ila al uud wa dahab wal fidda wa lidhalika waqa alayna al neena lépp lu nekkon ci ci aljana ba yonent yàlla adama jenne dang ko metteddu ay aadama lu ko dal ay suñ mbokk mi lu ko dal métti na yal na yàlla dimbale ko yal ko yàlla suturaal naqaru affaire bi méttalu ko ba mu def ñett ñett daal ñoo ko méttalu wut mooy bant ak xaalis ak or mu ne moo tax balaa ñu leen a jëfandikoo foog ñu mbugal leen xam nga bant balaa nga koy jëfandikoo foog ñu xar ko bu dee bu bu dee ci lal nga koy def sax foog ñu wowal ko ba mu wow jël ko di ko daggati wala ñu jël ko xamb ko di ko di ko di ko taal mooy matt dañ koy lakk buñ koy jëriñoo xaalis ni ngi noonu or balaa ñu koy jëfandikoo foog ñu digal ko ci taal lan moo tax ñu leen loolu dal leen mooy dañoo amoon mbokk mu ne buñ nekkaloon ci ab baab ab faxastalu dal ko ab musiba dal ko ñu ñàkk ko méttulu rek loolu dal dal ko naka koo xam ne nag da nga am mbokk mu am faxastalu mu am jaaxle mu am rëcc-rëcc yow nga di ci tiitaw di ko tasaare di ko jàllale ci whatsapp bi di ko jàllale ci internet bi yow ana lan moo war dal ci yow kon nag neen delluwaat ci jikko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax ne fii la ñuy amele suñ jotaay ñu ngi jéggalu ci kàddu yi e, jotaay bi su fekkee am na lu ci baax wala lu ci jub ci bàkke suñ sëriñ la si Abdul Baaxi moo ñu jox ndigal ñu ñëw léegi préparé wuñ ko kon lu ci baax xam ngeen ne aw ma xam-xam boobu jànguma li may wax ni xaw ma fu mu nekk ci man sax kon moom moo ñu ko tëbb su fekkee jub na bu dee juba dina am na ci maa ñàkk tawfiq rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amin amin wax ju nekk na am seere maa tooga fi Abdou Baax léegi Cheikh Baba seere nga yaa ma ko léegi laaj ma ma gëstu li ma laaj ma fekk na na nga bëggee woon fekkee ma ko ma dem Cheikh Abdou Baax léegi na ah, ba ñun kat suñ contrat bi ñu bëgg a jaar ba sax nee na ma alaaji ah, si nga mën a ko mu Dakar ana Taaha ma ne ko Taaha bi yaakaar naa ne xëy na mu nekk bu ma yaakaar naa ne xëy na mu ne ana am yu raadu ma ne ko oo naa ko léegi mu ne ma waaw moom fu nekk est ce que nekkul fi ma ne ko dama yaakaar ne mu ne la kaa def laa bàyyi woon mu ne ma oo ko ma laaj ma oo ko mu ne maa ngi kër gi si àll baax ne ko kaay dem léegi nga xóotu Oustaz Alioune Ndao ci conférence jàngal ko aaya bi nekk aaya boobu kat mooy thème bi. kon demal nga waxtaanal nit ñi ci jikko gis ngeen ni mu ko rafetee alhamdulilah kon xolof dafay léeb di kaf waaye lu mu waaye bu léeboo rek du mu ne doom yi mbër jàngil bëree def na def na la ñam de mais kenn bu ñu la ñamee te fekk mënuloo li bàyyi mënoon gàcce dana am coono kon mbokk yi ñu leen di bégal ne Cheikh Mahi umma insha allah dina ñëw ci ñu digi alhamdulilah xalifa Cheikh Abdou Barhama borom du kumaan moom itamit di ngi ci guddi gi insha allah bàyyi nag waxoon na ya mu may jàngal ci sama làmmiñu doom bu jigéen waaye ñu itam kan suñ eh. jataay bi tey ab jigéen jàngale nañu ci ab dara kii ñëw léegi ak mbooloo mu taaru mi soxna si Pape Demba bi tey kan mooy Pape Demba bi tey ki nga ci ci lañ ko yi am luñ ko cërale ci gàmmu bi am luñ cërale borom këram ci gàmmu bi mu ne moom na ne su xàndee borom këram kilifaam bu ñëwee ci guddi du jël kàddu mukk ci kanam kilifaam kon dafay ñëw ci ngoon bi kàddu bu mu fi mën a am mu joxe ko ci gannaaw kilifaam ngir màggal kilifaam loolu njàngat la bokk na ci jikko yi bi ñu kon na bu di ko ko xam na kon ñu koy wax bisimilah di jox Cheikh Baba ganam mu dalal ko eh, tatagal ko jox ko kalimaam insha allahu su ko defee ñu xeewi yëkkati jataay bi ba guddi ak jàmm ndax jataay bi am na solo am solo boo xam suñ ko boo fexul dana dugg ci lekk lu bari ci guddi gi te moom bi muy wax ak nee na jataay bi gën am solo muy ñëw te xam ngeen ñu dem na xam nañ dara xam lu tax wax kilifaam mooy borom bu du jël ko solo ci kon bu pare dafa tare nga kon wax rek nga Cheikh Hassan Dem nga xam soko tuddé rek la meñ yépp dañu d'accord né Cheikh Hassan Dem ak bari xam-xam soo ne Cheikh Hassan Dem hé Cheikh Hassan Dem ak xam Cheikhu Tidiane té yar yépp ka ben la xam-xam-xam ak xam Cheikhu Tidiane ben la ku manké xam Cheikhu Tidiane manqué nga xam-xam ku xam-xam-xam ya ma xam Cheikhu Tidiane kon ñu ngi lay ñaanal yalla fan ak wér di gërëm Cheikh Abdoul Baqi mi ñu la tànnal di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gi yaram dara du liggéeyam la mooy lii <coughs> kon xam naa ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewlu bi ak dal gi ak dégloo gi mu wóor ñu ne boo bëggee xool waxtaankat li muy wax fu mu toll nit ñi rek xoolal nit ñi buñ na tekk bu la neexee guddalal fekk ba ngaa déggee nag ñu soppi waaye sooy wax nit ñi ñee nge déyante ñi ngay coow booy woon noppi boo kon ne da ngay sa bopp pare waaye dégluwuñ la salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ku ci nekk seen tur ak seen jëm di jiite suñu suñu bàyyi suñu sëriñ Cheikh Mahamadou Ibrahima waaye di ci teg suñu sëriñ muy Cheikh Alay Harazim kon dëgg yàlla am mbégte bu rëy rëy rëy musuñu ñàkk di dañ di am mbégte ci njabootu Cerno waaye tey mbégte bi dafa yokk comme ni ko Baye Dara waxee ku ne ko jógal dem waxi même pas cinq minutes nga ñëw wax lii te yoroo benn këyit mbégte dëgg la ci képp ku bëgg Cerno sëriñ yi ñu ngi lay gërëm di la sant yàlla yàlla yokk la yàlla yàlla kàttanal la yàlla yàlla gën la barkeel yaakaar bi ñu am ci yow yàlla ko yàlla gën a dëggal ma lay wax ne ñun ñëpp am nañ yaakaar ci yaakaar bu rëy nag yàlla yàlla dëggal loolu kàddu gi du gudd parce que jotaay bi yemul fii am na leneen luy ñëw comme ni ko Baye Dara waxee suñu xalifa muy Cheikh Mahamadul Maay oo na ne dina ñëw gannaaw ci guddi gi lay ñëw fekkee jotaay guddi gi ak kilifa yu bari waaye rawatina ak njabootu Thierno Alassane Deme yëpp incha allah rabbi am naa yaakaar ne dinañ teew dañuy jël cadre rek di nuyu jotaay bi ñëpp mu xadam yëpp di leen nuyu wax dëgg yàlla xam naa bu guddee la ñuy gën a présenté mbooloo mi parce que lii taay la woon rek Baye dara am wax lu am solo mooy darsu bu ñuy euh, madame bi tey wax def mooy xam ne ne kilifaam Pape Demba bi tey programme bi programme bi bu fi ñëwee programme la bu ñëwul programme am la ndax sama diggante ak moom wax naa ko waa Kerem ñu naa leen sama diggante ak ma Mademba bi tey di ngeen njott rek ne suñu diggante fii la yool fii la fii la fii la yem waaye du ngeen mu a xam suñu diggante fu yem loolu moom yàlla def na ko lu may jëflante ak moom di ngeen njott rek ne lii la ñuy jëflante mais lu ñuy jëflante ak ma moom du ngeen mu a xam parce que du ko wax du ma ko wax parce que sama mag la. maga rakk nag ku nekk ci mbedd bi bëgg a xam lu ñuy jëflante da ngaa sob rek waaye waroo ko xam waaye sama xarit la aussi tamit ñun ñaar ñu am benn sas bu rëy rëy rëy paak bay demb bi tey ci dëkk bi sas bu rëy moom mu xam ko man ma xam ko mooy man ma nekk yarekat di yar ndaw yi di leen teg ci njub di leen teg ci yoonu siraat mustaqim mooy moom mu nekk leader boo xam ne ci wàllu xam-xam wax naa ko ko ba ma invité bureau ma ne ko naa la xamal fii président teg la mu ne ma ah ma ne ko 30 pour cent rek mooy politique 70 pour cent yëpp xam-xam la mu ne ma ah ma ne ko 70 pour cent xam-xam la parce que yaakaar ne yow rek yaa bokk ci ñi nga xam ne mun nañ yëkkati mooy entreprise mu mu jox la parce que du démb jamono Abdoulaye Wade ba léegi ñëpp découvrir nañ ne xam-xam borom xam-xam bu mën a dimbale Sénégal ci wàllu énergie Pape Demba Bitèye amul benn ministère bu fi ñëw ci l' duul ne pap demi Bitèye bok na ci ñukoy doxal bala ñukoy fal li fekk na ma Dakar ñu toog waxtaan ñaari poste président de la république buñ ko waxee rek lay signé na jox leen ko ma demi Bitèye te boobu mu ngi ci ministère de l'énergie kon koku xam-xam moko fa tek lolu mu doon nak xam na xam na loolu cëram ci dëkk bi mu xam ne cadre bu rëy la ci dëkk bi kon koku responsable du rëy la mom mu xam ko lolu mom bok na ci li boole ma ak moom ngi ñaan rek ngeen ñaanu ñu sëriñ bi suñu digënté ma ak gën ko dëgeural yaakaar bi ñu di am si ñun yàlla def ko kon madame bi tey joxe nga leçon bu rëy mooy ne sa borom kër guddi gi aali kulli aali même bu ma tàgguwut ñëpp xam nañ ne Pape Demba bi tey dina ñëw loolu moom kenn werante wu daf ma wax ne ma Cheikh Baba heure boo bëgg ma ñëw ma ñëw loolu la ma wax yow laay déglu waaye nag comme que man dama ko bëgg a lu rëy damay xaar ba ñu rëy ñi ñëw ma ne ko ñëwal moo tax suñu paree naa ko wax ne ko heure bii ñëwal waaye madame bi tey ñëw def lu rafet. xale yi tànn ko daaw defoon ko ma ren yàlla def Covid bi nganta lépp ren ñu ne dañ koy defaat bañ ma tàggu ma ne jarul may tàggu parce que kooku buñ ko ko defee buñ ko defoon moom xam na cëram ci guddi gi te alhamdulilahi rabbil alamin wane na ko nim ñëwee ni wane ne ne cër gi guddi gi sama guddi la te nim ñëwee ni noonu la pari yéene su demee ànd ak boroom këram ànd ak délégation ñëwaat parce que tey mboolem délégation CREM ñoo ñu ànd ak moom kon yàlla na yàlla fayante yow ci lu baax yàlla na yàlla dimbali la yàlla na yàlla kàttanal la li nga nekk sa gannaaw borom kër di ko liggéey lu rëy la yàlla na yàlla may la ci ndam dama mus a toog ak benn luñ tuddee borom xam-xam tubaab ci bitim réew mu ñuy xaw a naan jullit daal diine lislaam moom dafa jël jigéen teg ko ci gannaaw xam nga ñoom dañoo yàgg wax wax yooyu ma ne ko ah mu ne mu ne ma loolu nekkut ma ne ko waaw xanaa xamoon dañuy wax ne ñun góor boo gis rek am na jigéen góor bu mag boo gis rek am na jigéen bu mag bu nekk ci gannaaw mu ne ma dégg li ngay wax yow waxoon ne ñoom ñaar ñoo dend mais ci gannaaw kon kay mooy wane ne góor rek mooy jiitu yéen daal jigéen tegoo leen ko fenn ma ne ko soxna si ma ne ma ne ko xanaa xamoo oto bu paanee ku koy puus ci gannaaw lay ne ma ne ko ñun góor ñu bu ñu demee ba mënatuñ dem dafa am jigéen bu nekk ci gannaaw du ñu puus te maram xorojo bii madame bi tey bii noonu la mel ci gannaaw bi tey la nekk di ko puus muy dem ci kanam yal na yàlla dimbale la kon wax bi du gudd dañuy waxoon rek dañ koy dalal ak njabootam dañ koy dalal ak ay xaritam dañ koy dalal ak ay soppeem dañ koy dalal ak ñi nga xam ne mooy ay rakkam dañ koy dalal ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey ci wàllu bu rëy ci wàllu développement ñu ngi koy ñaanee yàlla yàlla ko yàlla dimbale dañuy jël kàddu gi jox leen ko ñu sànni seen kàddu su ko dee ñu jox sëriñ bi mu def ñaan ñu toog nag dellu kër ya reer dallu ba minuit sëriñ bi nee na une heure du matin moom Cheikh Abdou Bakhi dina ñëw kon ñun minuit war nañu fekk ci tànt bi moom bu ñëwee mu doxal jotaay bi incha allah rabbi bàyyi daraame am na xale boo xam ne mokkal na alxuraan ci daara ji loolu ñu ngi la koy ndokkelee ndax lépp yow la tey lay matali fii ci kanamu sëriñ bi def xat mu bi su ko dee nag incha allah rabbi guddi gi mu nekk si loxo sëriñ bi lii daal moo nekkoon kàddu yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp damay laaj addee baay shérif yaa ngi nii toog Thierno Alassane Deme ngi nii toog lépp lu waay am na ko génne ñu jox addee baay ci xam-xam bii sëriñ bi wax ñëpp di ko dégg mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla man ba muy wax xam-xam bi dafa neex ci man ba ay reetaan la may def parce que yomb gi mu yomb jël man loolu la ma neexee parce que buy waxtaan ndeysaan boo demee Sorano daawati jéeg muy waxtaan xam-xam bi day neex da koy jël dafa yomb yomb nga ne waaye xam-xam yomb waaye nag ki koy joxe mën moo tax kon yàlla na yàlla fay kon addee bàyyi mbokk taalibe dajale leen addee bàyyi ku ci nekk na génn li nekk ci poosam mu joxe ko ñu joxe ko addee bàyyi addee shérif yi su ko defee nag ñu door a jox madame Bitey mu sànday kàddoom ñu jox sëriñ bi mu ñaanal yàlla ñu dellu ba guddi kon acca génn leen addee bàyyi bisimilah.

rëq-rëq am muy Covid bi ñëwuñu biñ ko yëkkatiwaatee ñu ne lépp lu ñu mënti def dañ ko bàyyi ñu ñëw anam yaram yi neexul sax mais dañu forcé ñëw parce que xam na ne suñu bés la comme ni nga ko waxee te sëñ bi biñ fi yegsee ñun suñu yar may ñu pour ñu jël kàddu ci situation yi looloo taxaw ñu nañu jiitu si ñëw sànni fi quelques kàddu comme ay marraines lañ ñu daj ñu ànd ak jigéenu crème yi. ay kabato ki ak wa Kaolack ñep ñew ñu yegg pour wax la rek ne bëss bi suñu bëss la lu ñu neex la dila la señ bi ñu ngi lay gërëm fi gërëm mënta am li ngay wax ci Pape Demba dama koy sédé ndaxte am na temps bu may nekk ak mom te diko ko wa dëkk bi yépp sa japp li nga jappalé pap parce que réussite pap da nga japp ne sa réussite la lepp lo leen xamne lu bax la rek sëñ bi mi ngi koy def ngir Pape réussir du jóg ci diko ñaanal du jóg ci diko ko xelal du jóg ci diko andil ñu bax pour ñu jappalel ko. parce que wane na magam la bu dara do lu dara magam la ba noppi mu ëppal ci bok bokk kanam la te dëkk bi ci ñepp dañ ci bok rek am yéene ba ko ndaxte comme ñu ko waxé Pape amoon ay responsable bien avant.

dañ doon ñëw rek pour wax la ne di ñu neex la lii ñu ñu defal nii di ñu neex a neex la lool lu jeunesse bi def ñëw jël ñu comme marine ñu ñëw ànd ak waa dëkk bi waroon na ëpp lii sax mais dañ ne dañ def lu ëmb ñu ñëw jël la si la war na leen lii neex nañu lool jërëjëf ati Cheikh Baba yàlla def yàgg ànd ak wér yàlla na fi ànd lool te ànd ak wér parce que sa ànd wér te yàgg si am na njëriñ lool ci kàddu gi ñu yëg naa ne guddi gi guddi njëriñ la guddi yokkute la nga ñëw rek teew yéene sa soxla yi yàlla da koy faj. nga ñëw rek teew déglu li la jaaxaroon ci sa bopp bi dana finceeku dana leer ci yow incha allah rabbi ñu ngi ñaanal Pape Demba Bitèye mi nga xam ne moom lañ ko tuddee ak soxnaam yàlla yokku leen ci zaahir ak ci baatin lii moo baax jotaay yi diine yi di ngeen ci ñëw di ci teew di dimbale nitu diine yi ndax yéen a liggéey ñu ngi leen di tatagal di leen ñaanal yàlla bu baax ñun ñëpp neen bokkandoo jàng fatiha ak ñetti salaatul fatiha aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أهلك والخاتم سبق الناصر الحق بالحق ولا دين صراطك المستقيم على آمين سيدنا محمد الفاتح لقى القاتم سبق الناصر الحق بالحق ولا صادق المستقيم ولا آل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لقى القاتم سبق الناصر الحق بالقران الى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة والسلام لله الله الله Allah